ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di leen ziar da ngeen ko xamee rek Leewtoo ak ndogali wala Leewtoo ak koor gi ñu ngi nag tey fii maintenant lañ nag ki ñu fi seet si nag tey yàlla da dafa dogal mu bëree ren combat bi gën a gaaw ci saison bi ndax sax combat mas na gaawee noonu léegi nag nit ñi ne ñu nag kooku anamu war ngeen a dem mu wax leen lan la maanaam fu mu maanaam mbir moom moomu mu demee parce que affaire dafa gaaw trop taala lu gaaw a gaaw la. tey nag ñu seet si ko waaye nag day ànd ak ndogu de yaa ma gën a xam mais ñi nga xam ne ndogu li moom tax dañ ciy kii ñu mel ni ñoom Mbaye Diouf sama grand dëkk ci ak yaay mbay ñëwal tey ndogu li invité naa la kii mooy mbay guy gi defe naa combat bi gën a gaaw ren ci saison bi gars yi dañ ne moo ko bëre léegi ñu ne ma nag kooku war koo seeti ñu ko wax mu wax ñu lu xew mais day ànd ak moom parce que weeru koor lañ mbay maa ngi lay bëggee yaa ngi taxaw di manipuler sa téléphone. waaw maa ngi nekkoon sama téléphone kay. di manipuler. waaw di manipuler kay. baa si jàmm. sant koor gi. sant rek nekkee. baal ñu àq baal ñu àq baal nañ la. yaa ngi woor mbaa. maa ngi woor a baax baax a kër laa ngi kaw. mu ngi ci kaw. waaw waaw. kon dañu yéeg dem ci kaw taala. incha allah. ayca ñu dem ci biir. waaw. ndogu ndogu li. ñu dugg mbay. waaw waaw da ngaa si daara ji yem. kon taala entrée. gars yi maa ngi leen di ziar. bëggee. buur siin ku mën buur naka koor gi buur yaa ngi woor buur da ngaa ñàkk maa ngi woor kay maa ngi woor de maa ngi woor de bëgg naa Lagros kii mooy waaw booy reefan booy reefan a ngi nii <laughs> mbay mbay bëgg ngi nii toog de waa kee du seex taala ku mën a way a ngi nii laa ilaha illallah BMW waa maf gi <laughs> sama gaay ah maf gay nga ca roq ba ndeysaan waa kër mbay guy gee ngi nii kii mooy lan 2000 góor tur bi yow Mohamed ok Mohamed yow yaa baaxu tur lan 2000 a ngi nii waaw lan 2000 lan 2000 école Bara Dione pare daal di toog war a jàkkaarloo ak gars yi mais ndogu bi moom alaa daw mi na ma macha allah mbay mu nuyuwaat la rek. Babacar maa ngi lay fay. Mhm. di wax ginnaaw ban sant yàlla rek julli ci yoon bi gërëm suñu ñaari waar yoon. Mhm. di nuyu sama gaa yi xam nga li yombut. waaw am bés woo say doomi ndey yëpp ñu ñëw teew soutenir la. Mhm. am naa ci fierté daal. kontaan yëg naa sama bopp bu baax. ci gaa ci gaa yi. gis naa fi ñoom Bour Sine ñoom l'an 2000. ñoom Bour Ahmed Lagros. ñoom Boy Refan. BMW. ñoom Maf. Mhm. waaw gaa yëpp. ñoom Diasa. bàyyi laat sama xarit Cheikh. Mhm. gas sama mag ak seer sama rak. ak Balla Mbaye sama doomu ndey. yaa ma gën a xam gaa yëpp. ak Ahmed Gueye sama doomu ndey. Mhm. waroon naa laa jàll nag balaa ñuy commencer parce que yëg naa fan yii sama maam dafa génn àddina. maam dafa wàññeeku woon même di ko ñaanal fa mu tëdd. gënal ko fi mu jógee quoi ak sam papa ak mboolem jullit di ñaanal sama yaay mu yàgg fi loolu te wér ak yaay ñëpp di ñaan ci réew mi yàlla def jàmm waaw. mbay ci lu gàtt kañ nga dugg làmb. waaw làmb daanaka maa ngi ci dugg ay 2012 rek 2012 2013. ko njëkk a bëreel. maa ngi bëreeg bu dee ndakaaru fii si di jàmm ak gën moom laa njëkk a bëreet mais fekk reefan laa doon bëre dóor fa laa njëkk bëree bëre dóor. sa mhm. palmarès actuellement ñaata combat moo ci ne. man actuellement Babacar bu ma la wax fi mu ne nii mooy quinze combat laa war a am ah. waaw say victoire jàpp nga nombre bi. samay victoire jàpp naa lii ñu bëri fàtte naa leen parce que fi mu ne nii moom ñu ci kanam dong laa xam. ñoom nga xool daal waaw ñoom laa xool. Mhm. say défaite ñaata la. non moom ñetti défaite rek laa am. waaw di ñaan yàlla mu yem fi quoi. ban moo la gën a naqari ci defet yooyu defet yi kay bi ma ci gën a naqari mm. yëpp naqari na ma sax mais laay goota bee ma gën a naqari quoi mm. parce que maa man fukkam lay goota yaa man fukkam mu daan la ci lu gaaw waaw nam deme la Babacar damaa gaañu woon est que loolu du lay du question lay ni ñii ñëpp xam nañ li may wax mm. waaw Babacar balaa dara am yàpp wi nu lekk léegi. <laughs> neex na de mbay. ndawal gi misu yi. macha allah na de papis borom ri onze. waaye kenn du papis. daam siise nag borom siin. dama ko wax ko affaire yi mu am nu mu def. moom daam daam Cissé kenn du moom. li ngay def na yaatu. waaye kenn du seex Thiaw it borom Sandaga. lii ma sol kaw ba suuf. Cheikh nuyu nañ la. Cheikh Thiaw moo man ci réew mi. kan la ñuy kañ la ñuy defal nii maag Talla Ndiaye ak yàgg. boo bëggee mu defal la nii sama doomu ndey sama xarit. ak ñoom Baye laat waa seen sàndaga yaa may jàpp ci loxo yóbbu ma fa. heure boo paree ñu ma yóbbu la fa man mbër mu du jënd yére laa. place bu ma taxaw ne lii ñaata wékki ba pare man ne ma lii ma war a fay ñu ne ma jëlal ñu may la yaay suñ mbër kon loolu neex na lan mooy sa sekk parce que xaaral ma defar waat mbay pour toogaay bi gën a yomb quoi Talla Ndiaye mhm. du mën a ñàkk parce que mbay faw ma jege ku quoi ñu waxtaan euh, lan mooy secret mbay ak ak ak ni dama gis mbay mel ni nit doomu aadama nga xam daal dafa am relation bu bëri ak ay doomu aadama yu bëree bëri daal lii secret bi Babacar mooy damaa defut sama bopp may dara te duma dara it te duma tus balaa nga ko doon xam ma daan Balla Gaye wala Modou Lo wala Ama Baldé. maanaam dund dundu stade. aw ma googu jot sax bu ma paree sama carax yi laay sol génn mais nag fu nit ñiy daje bu ma fay dem damay sol rafet ñëw toog doon nit bu jàllee nag ñu wàcce suñu bopp doon taalu bi Serigne Touba rek waaw. ak sëñ Tafa Diouf borom boo ak Njaañ. Mhm. kese loolu doo ngay sama secret damaa defut dara muy dara te du ma réyal dara balaañ ko doon xam ma yor 4-4 di ko dawal. ni ma mel laay mel duma ma changé dara xam nga dañ naan mbër day war lool dal maa naqari. yow loolu da laa naq dalul dëgg wala. naqari am na ñu koy def de. wóoru ma sax mais dal maa métti bu ma déggee nit naa mbër day war mbër ngay financé ci moom dara mu dem ba mag war la affaire yooyu mitti na ma trop damay dégg nag ñu koy wax ay mbër. parce que ëllëg mbaa doo soppeeku. non ngay wax nii. est-ce que bu affaire yi ñëwee à 100 pour cent doo soppeeku. bu ma namee soppeeku yàlla bu ma daanati mbër ci làmb ji. ñi may àndat nii bu ma ci naree soppeeku wala ma ci jéem a jaay kenn fugg wala dara yàlla bu ma yàlla mayet ndam barke borom Touba yàlla bu ma mati len ndam aw ma sax temps boobu man dama wàcc sama bopp te dama du dara damay tolloo gaa yi ñu dund Baay Faal gi ne ci jàmm fu ma toog bëgguma bëñ dama bëgg bëñ yi feeñ subaa ngoon gaa yi reetaan mhm. waaw parce que mooy lool maa ngi ciy gis sama bopp it nde fu may bëree jaami yàlla yëpp may ñaanal mhm. waaw euh, damay ñëw tout droit rek si sa combat ren yaag Alioune Sèye sa combat ak Alioune Seye Junior nu mu tax ak ku ko ak bi mu taxawee ci lu mbay nekkoon ba daan ko daan bu gaaw boobu. mbay de ci lim nekkoon baaba Babacar mooy jël sama téléphone jël whatsapp bi tëj est-ce que dégg nga ma lekk ba suur yeew quatre di du matin dem entrement ñëw nelaw ba onze heures ma yeew dem saal ñëw añ ba suur tëdd nelaw ba cinq heures ma dem entraînement contact secret boobu kese la am ci combat bi. ak ñëpp ne ma kii moo mag ji lam affaire yooyu yaa ma gën a xam ma xam li ma xam man làmb ji ba mu daj mbër ka ca mbër mu ma ci man mais nag ku nekk sa dayo est-ce que waxoo ngir bégal sa bopp ak say say supporter aw ma boobu temps sax baa ne amul te yow ñu daan la non daan mënul ñàkk làmb ji xoola kon ci daanut waaw mais maanaam amut ku ma ci man yow buñ la yow tey xam nga mbay bu doon bëreeg Eumeu seen wala Bombardier wala Balla Gaye mbaa Modou Lo doon bëreeg ñooñu nga dañ ci man tey lii may def du ma ci changé dara. Talla Ndiaye doo ak mbay mi. déggoo ma de bés bu ma doon bëreeg ñooñu baar bi du wàcce loxoom nga ne kii daa am lu ko dal wala xaj na leneen. yow bu ñu suuloon sa diggante ak Balla nooy def. bu ñuy wàcce loxo maa ngi ci kawam danuy daje rek li muy def laa koy def rek man déggoo ma de Baakar amul mbër mu may xaarati ci àdduna ko yóbbu jël conseil boobu amul ñëw ma naan damay def stratégie yi di teg xel ak yooyu aw ma yooyu jot naa la dañuy xeex ba pare te bu ma ñëwee wor la bu ñuy soufflé maa ngi sa kaw kon daal yow xanaa loolu moo tax yaag Alioune Sèye Junior man ba may waxi sax mooyoo mhm. ma sax ma reporté daal non xam nga rek moom daa ñëw jël laam ji teg ko ci gàllaaj ah yow gàllaaj woon nga kan mbay déggoo ma de gàllaaj goom ko teg gim ko teg moom ah. dama koo jël duubul ko téye ko nii sama loxo waaw Sandaga Petersen ay million lañ dajale jox ma ngemb li ma ngembu kere ku ma ci daje doon dama lay jàpp foye la comme xale di dem xam ne lu ma def maay daan wóolu nga sa sëriñ de. non du question ah, ni ngay waxee nit ñi donc ñi lay ñaanal yàlla na nga am ndam rek man bu ma dalee rek man bu ma neexee du ma ngémbooti fenn parce que ñi may ñaanal ñoo bëri. pourtant bi ngay ñëw ci ñu doon wax ne mbay mi est-ce que ay doom parce gis benn tolluwaay boo xam ne ni dafa xawoon na ëpp. vitamine yi rek Babacar. lan ma lan mooy vitamine. pizza hamburger yaa ma gën a xam man lu neex laa xam. te ci laay dee it incha allah. <laughs> mayaam waaw ah, waaw kese ay pizza gis nga mis yi papis. dama damay dem ne ko laala ma wet xar mi mu waaj mu góor mu demee côté. fejare ko ba mu sew sànni ci kaw. ma toog tuuti mu ñor mu lalal ma kayit gi ma ne ko foofu mu ne ma demal tëddi te ngoon nga dem entraînement fajar ma ne ko amul benn problème moo man ci réew mi. waaye Talla Ndiaye mës ngaa ay bawol bawol lañ nag danoo bañut ci liñ doon dara. est-ce que dégg nga ma ñun ñëwuñu fii Babacar est-ce que dégg nga ma di am leneen lu ñuy xëcc wala dara dëkk ba lañ jógee ñëw fii ba làmb dugg ñu ñu ne ci di góorgóorlu suñuy mag tafaatini ne ci ay ñoom Mbaye Dioufine ba nu gis leen bëgg làmb tey est-ce que dégg nga ma kon buñ ci nekkee rek dañoo war a def fulaak fayda est-ce que dégg nga ma waaw ba yàlla ñëwal boppam mais nag Medina dañoo ñëw ñu bëggal ñu seen bopp ñëpp a ciy jàpp midinaa gis nga yow bu nuy bëree mbooloo mi nuy topp. am na solo waaw kay ku xamul dara. defe naa mënoo gën déranger loo gaa yi fii ba fee mënul ne ci àdduna bu buñ la toppee toppaat la découragé ci yow. léegi dan nga Alioune Sèye Junior mbay léegi kan moo ne ci xel mi. ñu ne sama xel Babacar bëri na nee nañ ma bul laaj mbër parce que mbër moo fi laaj. mu foofu lamb laaj da cee bokk diw laa bëgg. moo tax ku la lamb booleel actuellement man bul laaj mbër taxu teew damay laaj mbër. parce que dañuy bëre. da ngay laaj mu foog danga ko man ku ma ci war a daan. ci ka amul nii amul naa dinaa la jàpp daan la mënoo ci dara. Mhm. yàllaa ko wax moo ko bind sama jébi dama lay daan ku ma ci war a daan it buñ bëree yàlla mën naa def nga daan ma yoru ma ndam yàllaa yor ndam. sama xel ci nii ma bëri na. est-ce que dégg nga ma moo ma gënal fi mu ne nii misu bi ma lek nii. gàmmu géey men mi. tëngeej. nee na eh. nee na daa aay nee na daa aay ci ndaama. non ah, doy na waar ak ndaama de. déggoo kay nee na daa aay ci ndaama. soo mu def bu yàggul. nee na daa aay ci ndaama. bés bu bëreeg man ci lay bàyyee bëreeg ndaama ba keroog muy tikki ngembam. yow nga yaakaar gàmmu géey yow da nga ko da nga ko dool da koo dàq bëri lan. man. Babacar lijjantiwu ma lu mbër indi mën a la bëreek mënumaa bëreek mën a lii yooyu yëpp lijjantiwu ma xam nga lan laa gëm li ne ci man ak sama fit wi aw ma lu may lijjanti ci doomu aadama ñu tëj ñu arbitre bi ne pare nga maa ngi sa kaw dañuy bëree mu jeex ba ci gàmm gàmmo gee bés bu arbitre génnoon suñu diggante bu taxawee ma meeb ko sànni ko tëngeej làmb ji jeex léegi bu dul gàmmu. bu dul gàmmu Gueye maam Balla ñu ngi dox suñu waxaa leen nañ ko. men man maam Balla bi daan tafa mbër. waay mbay mi yéen mbay mbay yow da ngay rêve wala yow maam dox nañ suñu combat ba mu taxaw mu déggoo ci kàddu mu dem ba ci biir ne promoteur bi booy bi nga farat boo ma yokkalut lii ak lii duma ma bëree. ban promoteur benn Assane Ndiaye dem ba ci biir di daw mooy loolu di ragal. Hmm. bu bëree tag ma ni day gën a métti. wala mu toppaat sama ginnaaw gis nga fi mu mujj ak Tapha daa mën a bëre de no recul maanaam no recul keneen ki la sax no top 5 maam bala bu mag long boobu la yor rek ah, top 5 lay yóbbu gaay long-longal bi lay yóbbu ah, bu la fa dugalee ca long-longal ma teg ko ci bopp bi wër ak moom stade bi ba gaayab doyal ma door koo dóor ci suuf kese man mbër mënuma am mbot ñoom ñëpp nañ ma dégg parce que boroom Touba Babacar ñun dañoo doon ay xale di jàng bëre ba màgg yàlla def ñu man li ñuy def loo ne yàlla dimbali la ci te danoo son ci liñ ne man bu ma yàlla dimbaliwut ci bëree ma xam ne mooy lool parce que dama cee son dama koo tarbiyu jàq ci samay liggéey ne ci di dund làmb moo tax lii rek la ma yàlla mën a fayee ma am ci waaw nekk mbër dimbali ci sama yaay ak ñu yaakaar ci man. mbay am na métier. waaw am naa métier damay jaay. waaw. dégg naa commerce commerce ngay def dégg naa de. may def commerçant business rek commerçant jënd jaayaat yaa ma gën a xam say business yaa ma gën a xam business fii rek lu la mën a may dara nga dugg ci lu mbay daa yor ay si dëkk bi wala. non yoruma de maa ngi koy ñaan yàlla de mais <laughs> am naa xarit yu yor magasin yoo xam ne bu ma demee lu ma soxla ñu jox ma ah. waaw. maanaam parce que damay faral di dégg la ci mbedd mi mbay mbir moom xaalis la nangam sangam nu mu demee noonu. allahu amin loolu la ñuy ñaan yàlla mais wax dëgg fa yàlla yoragun dara ay xale lañu di jéem ne ci yoon di liggéey mais nag yàlla bëri na sutura waaw te yàlla it seetaanuñ mu ngi dimbali saabu bu suñuy poos wéetee defe naa mu ñëw fàttaleku ñu ñu def ci dara ba mu fees waaw. mbay relation ak mbaru Bawol yi nu mu demee la ko commencé ci Tafatine ba wàcc gis naa fi Buur Sine mu toog. li ko commencé ci Tafatine ñoom Buur Sine kéwél ñoom Nokia ñoom Wuli 2 est-ce que dégg nga ma. gaa yëpp aw ma ceeg mbër xaar ma yàlla parce que amuñu googu jot ñun bu buñ fi nekkee di soxorante it coono lañu yeb suñ bopp du yàgg ban fay ma maag buur si ñuy bëre xam nga loolu du am du yàgg ban fay ma maag wulli ñuy bëre wala kéwel mënul ne ci àdduna danoo bëgg a jël raaya bi gaa yi yor fi yóbbu ko bawal waaw moo tax ñu topp ci suñ ginnaaw tafaatin doon ay rakam di góor góorlu yaa ma gën a xam mais am na kenn ko xam dañ leen daan gis lu bëri Nokia sa digganteeg Nokia lu ci xew sama diggante ak Nokia de lu jàmm ak salaam xew ci. Ah, man dama daan gis Mbaye ak Nokia tout le temps mais léegi mënatumaa gis lu wala boog sénégalais yu bëri seetlootuñ seen diggante ak ànd bu metti boobu. xam nga loolu yëpp tey jii fii ñun ay xale lañ tey jii am na fu ñuy toll foo xam ne yenn yi dootul mën a ne. suba ngoon danoo dem ba tey am fu mu toll ci làmb mu am fu mu toll ci làmb di góorgóorlu ñuy góorgóorlu kon tey bu ñu demee ba toll fenn fi rek est-ce que dégg nga ma day ne ci waaram ñu ne ci waar mais amul lenn lu dox suñu diggante man ak moom ñu ngi déggante ne ci jàmm bu nu waree gisee gise bu nu warate gisee ne ci jàmm mais amul lenn lu dox sama diggante moom ku ne daa toog sa ruq rek ne ci sa liggéey gëm sa bopp looloo fi am parce que làmbit nag du biir day xëy wasin waaw noonu la demee kese leneen amul suñu diggante sama mag la sama xarit la daanaka lu bëri ci moom laa ko jëlee waaw. Mbaye am na jabar. waa am naa soxna ma waaw. waaw wow am naa soxna bu yàgg. <laughs> non damaa xam ne yi da naa leen nga jabar ñuy wër-wër loog di jéem a kii. Ah, jabar moom xanaa desu ko na bu jabar de jabar ju xees pecc sax. ki ah, Serigne Bamba. <laughs> yow kay lii jabar rek sa bëñ yi xam ne dama koo bëgg rek. ay taal mbay taala jaay ko fi bañ jabaram. <laughs> ah man de bañ ma jabar. taal de bëgg na lébu te man de wóor na sëñ Tuubaa moo bi ma doon lekk fii. lu leer laa wax ak koo bëgg torop anamu mu ngi fi mu ngi ci <laughs> kon de mbay xanaa wàllum ñaareel moom boole ko ci liste noo gëmaguma ko nag man kay defe naa ne ah bu yàlla defee jàmm rek lii ma gis kay bu continuer moom jàmm rek a mën a am takkuma jabari ndakaaru de fii laa takkee ba ah, de ah, waaw jabar kay foo ko takkee bu la nobee moom baax na bu la nobee baax na mais nag it yaa ma gën xam ñun reefal lañ dëkk fa la ñu dem ne cuqeerlu ci tak teg fa yaa a gën a xam te daa am xale yu jongama xamuñu dara waaw mais xam nga rek yaa a gën a xam dëkk bi moom mooy lool <laughs> sama gars yi moom nu kon ñu ngi lay nuyu madame Nogoy no ay waay waaw Nogoy Diouf sama si Diouf kéwél nijaayam ak wulli de ah, ñoo la may jabar waaw <laughs> mais du ma leen may dara tànnal baax na de daal ma tànnal baax na kay moo tax kay yaa gën a xam chaque jour seen jarbaat day saalit am hmm. léegi ñu lay suivre ci Leewtoo TV loo leen di tàggoo ak sa addina bi yëpp daal Bada nag am na lu ma wax da ngeen mës a bëre yéen ñaar Bada noo bëre nee daan na la de yaa ngi koy laaj revanche boobu uh, daan na ma jël bu leer nañ da nga bëgg a daa ñimee bëree teeg man kon ma toj biiram boobu de <laughs> Bada John bés boo bëree man. billaay wallaay dootoo jaay ci sa magasin yi netti leen lu leer laa lay wax. looy tàggoo. waa li may tàggoo mooy gërëm gaa yi ñu ci mel ni sama gaa yi rek Cheikh Thiaw Sandaga. sama waay la sama xarit la sama doomu ndey damaa dem mu tibb xaalis bu bëri ne ma am demal def li nga war a def ci ndogu li mook daam siise borom siin gis nga dégg nga ma Peter Sène nag képp ku naan fa yokkal ma jaay la ak Sandaga maa ngi lay sant di la gërëm di leen wax ne gis naa seen taxawaay sama côté ak sama doomi ndey yi sama mag a ngi gas fu ne lay dug bu ma amee combat sama ñaar dërëm du dem ci li muy lijjanti Balla mbay mi waxi noppi seer sama rak moom chaque jour ma wax ko nit ku la bëgg neex naa xam chaque jour ma wax ko est-ce que yaa may dégg mais li ci kanam rawati bét yàlla sur bëri na suutal li muy séeri ci man yàlla na ko gis moor lan 2000 sama doomu nday g kii ndakaaru la dëkk mais sama lépp moo ko yor samay sarax moo koy dem lijjanti ji def ko te du ma yëg du ma génn bàyyi laat waxi noppi ñoom buur siin Amet Gueye sunu waay la doomu ndakaaru la mais mbokk mi sax dañ koy xas naa ko ba nga ñu yaa ngi ci mbëri yeeg bawal bawal yi est-ce que dégg nga ma xam nga lool neexut waaw nga muñ rek jàpp fi nga jàpp ak sama doom rakk yi nga xam ne ay ñoom BMW Ahmed Lagros ñoom ci euh, nanati Tavaler numéro 2 mastam combat bu àgg nag. waaw mais bii di ñëw moom ci lambi sëñ Modou Ñaaji dina àgg te dinaa ko indi te dina am ndam incha allah Ahmed Lagros it sama fils. daa am bu rëy moog Liss Ndiago di wax Liss Ndiago loo mën a. waaj Liss Ndiago na problème. Liss loo mën a waaj waaj ko. booy boo bëri dem. déggoo ma de mbooloo bëriwut. arbitre baa fay ne moog Ahmed. te na ko leer ne ngemb lu mu doon gis ci mbay guy gi dina ko gis ci booy bi mu ngemboo ko ñëw taxaw. kooku élément si tala de jàmm gën ak ñoom maama Lamine ak. ngemb ak maama Lamine nag ñëpp ma ngemb ko maag gaa yi ñëw taxaw ñu jëflante ñooña bu ñu laale woon ñu xam ne lépp dëgg la. man la sum waaye ngi boroom camion yi champion bi. waaw waaw booy refat wax mu dellu si nag. waaw boobu ba léegi année balance bi daa yàgg. est-ce que dégg nga ma. di nuyu ñëpp di nuyu nag sama dëkk reefan fa ma dëkk muy reefan boox di nuyu waa reefan boox yëpp di nuyu ñëpp di nuyu ñaari saal yi ne patar seen ak Babacar bu mot la ma sama doomu ndey sama xarit ak Mor Diouf ak ñoom Assane ak ñoom seex Mbaj ak Laat Cissé Laat Cissé aw ma fayam sama waay la da ciy jàpp dafa am gaa yoo xam ne Babacar buñ leen du sant rek ci lii nga mën a def sant leen am na ñoo xam ne sax boo waxut garaawut Aliou ma ko nuyu Assane Ndeye Sarr sama xarit sama doomu ndey maa ngi lay nuyu di nuyu sama mag yëpp di leen wax daal kontaan naa ci ñoom ak waa Colobane Malick Balla Gaye sama doomu ndeyam kalpeem dafa réer nee na pochette bi ku ko gis Malick a ci ne maalik Balla Gaye sama doomu ndey kalpe baa réer nag dimbali leen ko ci mu feeñ waaw yaa ma gën a xam ndéeg fii fi lépp di leere ci Leewtoo waaw yaa ma gën a xam seex sama doomu nday seex décalagel Cheikh a ngi nii mi Miami kaay nii da ngay toog Talla Ndiaye waaye toogal fu la neex toogal sax ci sama kaw. man nam naa la man de wóolu naa la mbay guy géey akate la maamam jàllo jooy noppeegu nu mbay guy gi aa mbay doomi mbër jàngil bëre yàgg yàgg de sala ma amet man de bëgg naa la doomu yaayi baay laat jam daraja yi baay ji ko sëkkal war boo ko déggale am nga ñaan waajuru see man di wóolu naa la ànde ñun borom sànn gaangoog mbay jam daraja baay ji ko sëkkal yar waaye jigéen mbay guy gaangoog man di wóolu naa la aysa man di bëgg naa la mbay guy gi Babacar dama la dama la dama la man man defoon gëm naa ah, ah, ah, tele sama yaa ngi daan yaay ma seer jàpp na teewa baaye eh, man de wóolu naa laay magu mbay guy gàngoog yéen a bokk ndeeg baay ay waay ma nga jàppee ba léegi baay yoo oh, ndaa naan ngay mën a doon man ba gën naa la man de wóolu naa Babacar waaye taalibe Cheikh Béthio Bango yàgg maar Cheikh Béthio la ñuy jooy moom Serigne Saliou soxna Bambi Thiam mooy yaayam taalibe Serigne Saliou borom njàpp ndal borom xabam borom lagam Serigne Saliou la doyloo man woolu naa la Talla Ndiaye doomu yaayu Babacar Serigne yaay le Bango ay waay seeri lebu ñëw na a taala taala baay Muhammad yaa doy loo ba cër ba mu jeex waaye ànd mi li may woy yaa ko man doomu yaayu baay laat man de bàyyi laat bëgg naa man de wóolu naa la man fonk naa la jam dara ji bàyyi ji ko ca kala yor Cheikh Abdoulaat la la tudde borom belal bàyyi sii de doomu yaayu maam góor samb sama xarit baa ngoog man de wóolu naa mbay guy gee doomu yaay doomu yaayu papis borom dibiteer la mbata bi ci riisiis lu mu lakkul baaxul papis yaa a lakk ay waaye waaye amet sama waa jàngo yaay borom Ndakaaru oh, amet tey amet gey man ñee la jàngal waaye yaay jàngal ndaw ñu guy ku daaru gàngoog xale la nii ma nga jàppe ba léegi bàyyi woo amet yonent ba la tuddee ma de bëgg naa la ma de wóolu naa la kuy doon ma sama jee atreen waa Sénégal waa adduna bi maa ngi leen di nuyu di leen wax ni leen kontaan naa ci mbéy guy gi ak Babacar kër mii day sama xarit fu ma fekk taalal ma micro am barke Serigne Bamba Babacar yàlla na yàlla guddal sa fan. di nuyu nag sama xar yi nga xam ne ñoo may seetaan ci àdduna bi di nuyu ki nga xam ne mooy alaaji Samba Ndour sama sëriñ sama xarit Ousmane di sama xarit suma sëriñ maam Góor Samb Abdou gote ah sëriñ ñang Mor Diab Mor Talla Gueye Bada Gueye sama xarit yi door a Sall Bos Baara maa ngi leen di ziar bu baax bi baa soog Xaadim Ndiaye Xaadim Njaay sama transitaire bi Serigne Ñaaña di nuyu waa Rebes di nuyu waa Medina di nuyu waa Gueule Tapée di nuyu waa Mbuuboon famille nag Babacar di leen wax ni Sénégal dénk naa sama bopp maa ngi nii jaajëf kon noonu la fa demee woon Talla Ndiaye Seex a Ngongu ba beneen yoon ci Leewtoo TV mbay guy gi kontaan nañ